مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق لقد لمست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره عنق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق لقد لمست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق يوائم شجوي شجواه وقصيده قصيدي فما بيني وما بينه فرق أعاني كما عانى من البعد والنوى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 anta alladi allamta luqmaan alxikam fa liyahab bil mustafa xayra siyam mbokk yi bàyyi xel si defem seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu قصيده قصيدي فما بيني وما بينه فرق أعاني gannaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala di julli di sëlmal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaay bii di xamtu xamtu ñu di ko amal euh, diiru weeru koor gi li ko tàmbalee ci altine ba aljuma bu 16h jotee jàpp 17h ngeen ci ànd seen mbokku Mbacke Sylla wa ahdaathuha haqqun fa atyaafuha hulmun ginnaaw bi ñu jaajëfalee oustaz Alioune Sall ci tafsiru quranul karim bi nga xam ne ci la noppee ak ñun léegi jaajëfal oustaz Alioune Mbaye ci jaar jaar yonent yi alayhimu salaatu salaam jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel ci Sud FM seen rajo ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare baax a baax wa rahmatullahi wa barakaatu. wa ahdaathuha haqqu. mbokk yi suñu jotaayu xamtu tey xam naa niñ ko baaxoo defee ci biir weeru koor gi ñaare bu ñuy def eh, bis bu yàlla sàkk ñëw ànd yéen ci téléphone yi indi ay laaj ngeen di ci tontu bu ñëwee ba ajjuma ñu ñëw yéen nag ci waxtaan woo xamante ne dañ koy séq jaarale ko ci tomb yi nga xam ne moom lañ jot a waxtaanee eh, ci biir ay bis gi yëpp noonu la defaat ak yéen am téléphone waaye noonu lañ koy tëralee ànd yéen ci waxtaan woowu wét leen diggante ci ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu sàmm waaye itam nangul ñu suñu koor te nangul leen jaajëfal bu baax a baax sponsor bi nga xam ne moom la ñu àndal ci jotaay bi di waa ñoom ci seen bopp ñoo fi indi tàngal bégee indi itam li nga xam ne mooy ndoxu waalo waale door itam ñëw ànd ak ñun ci jotaay bi ñoo ngi leen di nuyu ñaan suñu borom subhaanahu wa taala defal leen tawféex ba li ñuy dabb si ci jotaay bi ba ànd ak ñun ci di ñu wét li suñu borom defal leen ko jotaayu xamtu jotaayu daara la jotaayu donga daara la alxuraan lañ ciy waxtaanee téere boobu nga xamante ne suñ borom subhaanahu wa taala moom la wàccee woon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye mu ñëw ci ñun ngir euh, jële ñu ci ak lëndëm yóbbu ci ak leer niñ koy waxee bis bu yàlla sàkk suñ borom subhaanahu wa taala joxoñ ci yu baree bari indi ci ay misaal waaye indi ci ay cax yépp nekk ay jàngale yaa ayuha nnaasu duriba mathalun fastamiu la inna alladina tadcuuna min duunillah lan yaxluqu zubaaban walaw ittamacuu la wa in yaslubhum zubaabu cheyan laa at-taalib wal matlub maa qadarullah xaq qadri inna allaha la qawiyyun aziz suñ borom subhaanahu wa taala nee na yéen nit ñi déglu leen ma wax ak yéen ñun ñëpp ñu dégg ko suñu nopp yàlla ne kaay ma léebal leen kaay ma jox leen misaal kaay ma sadd leen ne loo xam ne am njàngale la ku ko xool da nga ca gis lu yéeme ñu ne ko yàlla loo wax mu ne misaal maa ngi nii déglu leen ñii gaa yi di jàpp wala ñi ñu déglu wala ku ñu dimmandikoo te du yàlla ñooña day Eh, tooñ mënta weesu loolu ndax mënuñoo bind aw weñ yemuñ sax ci tëlee bind aw weñ waaye bo aweñ weñ ñëwoon dinaan ci seenum soow sax mënuñ ko caa dàq mënuñ ko caa xañ lam ca war a jël yàlla mooy kilifa gi yàlla lañ war a bàyyi xel suñ jotaayu tey danañ déglu léegi alxaaji Ibrahima Sakho mu baax mi fàttaliku ko buñ noppee déglu ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si Al Maktoum déglu ki nga xamante ne nii mooy Serigne mbay Mbaye fàttaliku borom xam-xam yooyu nga xamante ne jaaroon nañ fi ci réew mi te génn ci daara ji te seen wax doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la kon ñu ànd déglu alxaaji Ibrahima Sakho te dellu si waat ci jotaay bi. yaa xaysal bëri yow mi bëgg a laxas jëm gànnaar li asdaafin dem xam maa mi ne bi la laan ngi taxliil la waxuma ilmu urub waxuma nax waxuma bayaan waxuma tafsir waxuma ilmu idaab waxuma ilmu nujum mais bu dee siira rek bu fekkee xam na bi rek la soxlaatu la génn Sénégal yaa xaysal bëri yow mi laxas jëm fuuta li as daaf yi ngir xam ne bi rek matu ko toogal fii fuuta dafa sori yaa xaysal bëri yow mi laxas bëgg a dem gànnaar ndéem li as daaf yi xam ne bi rek soxla ko toogal fii gànnaar dafa tàng yaa xaysal bëri yow mi la laxas li as daaf yi jëm fu ñuy wax Maroc ngir li as daaf yi ngir xam mi ne bi rek bu ma dem dafa sedd ya xay sa bëri yow mi bëgg laxas nag li as daaf yi jëm ñuy wax Medina ak Màkka doon ci fële bi juddoo Euh, euh, ngir xamina bi rek matatu ko ñu naa laaji Maalik lu tax sago bu tool moom kenn du ko am réere ko a bu leen saalit indi ya jëm nekk lañ suma dënn gi asdaafun fasa ngi xami ni maami nebi boo xam ne biyaa nekk ni ci biir xam-xam ba bu ngeen ma dégloo durootun aw farafancin woo xam ne ala ah, leer gën a leer gën a dëggu mi na jëlami ci dënn sëriñ si ci des jërëjëf <laughs> ah, waaw ñu ne làqal ci nañu yow la ñuy déggu mu ne lu ngeen laaj ma wax bëgguma weexal soxlawuma neexal waaw Mohamed mi nga ne xam nga ko nag sa xam-xam ak moom na mu deme mu ne fu ngeen laaj ma tontu leen lu ngeen laaj ma tontu leen maa lànkoo sama gaal man kenn tëmbal ko man kenn maa ko lax maa ko mbandu maa as ser ca yax ca xeer fag wurus wépp ceer ak moom fajar mool yi gën a njaxlaf ñoo njëlu sëgg si gaal gi naan teggi leen toogoor yi ay wa waay mu ne leen hey yaa xaay sel ñu bëgg a tëmb bu leen tëmbee géej dara desu fa wurus baa ngi fii daay leen jëloo <laughs> Mohamed mi ngay oote xam loo ci xam mu ne lu ngeen laaj ñu ne tànki baay ba mu ne noor Abdoulaye Saybata Haatim Abdou Manaaf Xusey Kilaab Murataka looy Faalik Malik Nabil Kinaana Xusey Mudarikatu bu ñuux ko ci Adnaan ñoo ndax xam góor gi wax na dëgg tànku ndey nag mu ne Aminatu bintu wax bi ibnu Abdou Manaaf lu dëgg nit ñi Kilaab bin Kilaab ci la nabi dajeeg yaayam diggante Aminata Kilaab juróomi maam la diggante ak nabi ñeenti maam la fa la ñu daj mu ñuux ko fa ñu ne ko waaw dëkk bi mu juddoo ndax aw ay mas na mu ne bu rëy ñu ne ban la mu ne da ngay wax abraha da ngay laaj abraha yaa wayla abrahatun dallat nakidatuhu isma isuqu fuyoolan qasid al arami ñu ne xam góor gi wax na dëgg waaw ñu moomoon màkk chef de village su ma ne maa leen xam waa su jur humoo baytallahi rashiqina min baydi naabiti alasta min roami ñu ne waaw kañ lañ ko yónni mu ne min baydi taa in wala min summa sittati ashhurin raa kan fi laa xisub ilam jooy mi ñu ne dégg nañ ku teel a ñàkk yaayam mu ne waaw mu ne waa maar a asuktan alakat umuna bi bi abwaa awi suami ñu ne ñaata jabar la am mu ne aswaaju fa umaatul mu'minin ñu ne doom yi mu ne awlaaduhu ñu ne kañ la génn mu ne wa fi sakin xat xadat min dégg nañ ni ne sara ilal muntaha ko laaj nag ba di ko laaj pour pour ngeen am preuve nag boo ci ne ne bi yonent la bu ñu la laajee san nga indi la xad jaakum san nga indi la xadd man nan laaw alina ku ci ne di alquran mais nga sukkandiku ci siira tontu li alaaji Maalik wax si i Maalik ne ne da ngeen di laaj kañ dañu yónni ne bi mu ko waaw si mu ne maa xam kañ la maa xam fan la maa xam nan la maa xam kan la xam jeex na xam naa kañ lañ ko yónni xam naa fan lañ ko yónni xam naa kan lañ ca yónni xam naa nan lañ ko yónni xam naa fan la xam naa kan la xam naa nan la xam naa kan la ma ne fan la place la nan la aw defin kan la jëf la kañ la dara qasiduka fanhallat dumu'i kama alwadq jërëjëf alaaji Ibrahima Sakho yal na yàlla yokk ay leeram mi ngi noonu ndeysaan waxtaankat ba gàmmukat ba borom xam-xam bu mag ba borom dégg gu yaatu gi rawatina nag ci mbindum Cheikh Sidi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu gis nga fi mu jaar ak tàmbalee ko ca euh, la Cheikh Sidi Hadji Malick ne yaa xaayisal baxri yow mi nga xam ne dangaa bëgg xuus géej gi lim ca tegtale rek mooy yow mi bëgg a jéggaani ab xam wala yow salaatu wa moom la ñu wax ne kaay leen ma wax leen mu tàmbalee ñun nag li nga xam ne mooy jotaay yooyu maa ngi wax ne ci jotaay yi nga xam ne mooy jotaay gàmmu ak yi nga xam ne moo ci aju bari na lool luñ xam ci suñ magi réew bari na lool luñ jàng ci suñ digganteek ñoom waaye ñi ngi ko jàngee ci jotaay yu am solo yii moo tax tey suñu xam xamtu tey nekk spécial fàttaliku ak yi nga xam ne mooy njàngat yu xóot yi nga xam ne moo nekk ci yii nga xam ne daf daan jege nit ñi ñu ñëw tànt di ci dundal yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye itam delluwaat ci bëgg bëggum mag ñi fañ tegoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jàngale ak dundam te moo ne day booba génnuñu jàngi waaye itam di ci dellu siwaat di ci xirtal nit ñi nit ñi di ko bëgg di ko tudde seen njaboot di ko dund di ko yëg euh, loolu nekk beneen jeexital boo xamante ne ni moom lay indil ndax suñu borom moo wax ne bu ngeen bëggee ma bëgg lee ma bëkki ma bëkki yéen bëgg leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye bu ngeen bëggee jubit topp leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax wax wa in tutiuhu tahtadu ku ko topp rek moom alayhi salaatu wasalaam daal di tàmbalee jub daal di tàmbalee tegu ci yoon wi danañ dellu si waat ak alaaj alaaji Ibrahima ndax fi mu le am na solo waaye balañ cee dellu si waat ñu dem seeti si Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum ca jotaayi gàmmu ya ca toogaay ga ca dal ga ca waxtaan yu am solo yi nga xam ne moom la ñu daan indil loolu itam doon lu am solo loo xamante ne dañ ko daan fàttaliku ak di ko li nga xam ne mooy gàmmu gi ñu dem seeti Serigne Cheikh te ñëw mbokk yi duñ fa yàgg nag seytaane amul benn werante moo tax bu demee bàyyi boppam ba ni seytaane ko man gàcce dikk na gàcce dikk na ndax kët bukki bu dabee ponkal ca doxin wala ca doxin wala yaa laytani yaa laytani lam lam attaxid fulaanan xalila eh, bo bo bo boo ca àggee gàcce am na boo ca gàcc àggee gàcce am na waaw ah. diwa ma ko teg diwa ma ko teg te diw ëpp la responsabilité ëpp la ful la nga fexe ba mu def loolu lu ñëpp di wax nga di ko rëccu def nga musiba waaw hmm. moo tax yonent bi daan bañ ñi daan wax ni jamono neexul la tasubbu dahra fa inna huwa dahr jamono neexul jamono neexul jamono neexul jamono neexul jamono neexul waaw moo ne na mu meloon rekk la mel waaw na mu meloon rekk la mel dafa fekk nag bu nit ñu soppantee jamono yaatu bu nit ñi dimbalante jamono yaatu bu nit ñi bañante jamono xaj xat bu nit ñi bañee dimbalante jamono xat kon nag bu ñu sikk jamono nanu sikk sunu bopp moom la yonent bi wax ndax bu ku nekk soppee morom ma rek yàlla defar yiw waaw maa ngi koy wax benn kilifa yokk leen ñaan yi yokk leen ñaan yi ma ne ko ñaan nañu ba dee na xol yi sell nag te kon xol yi sell nag buy sell rek yàlla di nangu bu ñu fóotee xol yi yëpp yëpp ba mu set lu ñu ñaan yàlla nangu ko waaw la yont yàlla Moussa ca mbaawam ma ci banu Israil ba ñu ko santee mbaaw ma ndax booba ndox amatul ndox amatul te bu ndox amul musiba am ñu mbaaw mbaaw mbaaw mbaaw mbaaw mbaaw ñaan lañu daan def yépp ñu ko defee am taw ñu def ko taw bi ñëwul yàlla ni ko mbooloo mi def ci am kenn ku ma tooñ bërki biir te baalooguma bu ma baaloo réccu ko rekk taw bi ñëw yonent yàlla Muusa wax ko ñépp ka mu dal xam ni mooma daal di wax ci xolam ni ko yàlla man la baal ma ñu toog tuuti rek ndox mi commencé toq ndax taw a taw ba ñëpp kontaan yonent yàlla Moussa ni yàlla waaw doomu wax kana mu ne ko nga di ko ko xoole mu ne ko duma suturaal jaam mukk di ko xaw yi waaw mm-hmm. ba tax na it tawat buur nañu tegtal la ci tawat buur maanaa sama buur bi baaxul dafa ñàkk yërmande maanaam dictateur la maanaam mi nit ñi mi tëj nit ñi ngi def lii mi ngi def laaj ci wàllu buur sa bopp nga nga sikk te yëguloo ko ndax nee ñu réew mu nekk nañu mel seen buur la leen yàlla di wutal réew mu ne nañu mel seen buur la ñuy am bu ñu baaxee yaatu yàlla jox leen buur bu baax bu yaatu bu ñu bone xat yàlla jox leen buur bu bon bu xat kenn mënu ci dara Cheikh El Hadj Malick ko wax laa tasubbul muluk moo ko wax walakin uudu ila aatafihim alaykum nee bu leen sikk ñi leen ci kaw suuf dellu leen ci ki gën a baax ci yéen ñooñu yàlla boo ko joxee cëram rek mu baaxal ña nga nekkal boo ko xañee cëram rek mu jàgguloo ña nga nekkal benn werante nekku ci waa tax wala tansawul fadla baynakum wala tansawul fadla baynakum diw li ma def danaa ko fayu waxul loolu waaw waxul wala tansawu charra baynakum wala tansawul fadla baynakum la wax waaw kenn ku ne la mu gën li na ko woon morom waaw kenn ku ne la mu gën li na ko woon morom ma kenn ku nekk la mu gën li diw li ma def tey moo xam ni gënuma ndey tey ma won ko ko déedéet won ko li nga baax la yow moom bu la wonee li mu bon la it yow won ko li nga baax waaw loolu ndimbal la te dina di sagal yàlla ndax yàlla xam nga li ñu wax ni al arwaaxu junuudu mujannada al arwaaxu junuudu mujannada la fama taarafa minha italaf wa ma tanakara minha ixtalaf ndax yàlla nee sunu jëmm yi du sunu jëmm nee na bu doon sunu jëmm du yàqu xamuloo ni yàlla rus na defar fonk la mu defar muy yàqu waaye mën na koo dugal ci biir loo xam ni bool walla yàqu moom du yàqu waaw looloo tax mu wax ni sunuy ruux nee bu nu ko xeeb nee ndax moo leen yaral boppam kenn ku ni ruux gi ci sa biir yaram ci loxo yàlla la yaroo ay régiment lañu yoo xam ni duñu mooy ndigal mukk moo leen yar ni nga jële nit yóbbu ca quartier ba ñu yar ko discipline ba fu ñu ko yem loo lay yem lu ñu ko def loo lay def lu ñu ko wax loo lay wax euh, yar bu ëpp doole boobu la yàlla yar ruux ruux bu nekk nag pour nga dund ci kaw suuf foog mu tabax dara dugal la ci mooy yaram mooy yaram waaye yaram itam ah dangay seet ni mu ko defe pour won la ni li mu ci dugal rëy na ndax bu ko defoon rek benn espèce de taatu garab ñaari tànk yoo dox xalangu ñaari tànk yoo dox xalangu defewu ko noonu ma dem te ñëw baatub ma dem te ñëw la ca aju ba mu am baatub ma dem te ñëw la ca aju lépp ba am bala nga koo xam àgg ci bañ ko mën a waxati ma dem te ñëw béréb waaw defe ne bu asamaan doon daanu nga awut dajeeg nit lëng ko ree foo jëm maa ngaa dem por ba te ñëw la ca aju ba mu am boo ko xamee dinga nekk borom xel macha allah jërëjëf maam Cheikh Ahmad tiijan si almaktum Serigne Cheikh a ngi noonu ndeysaan góor gi nekkoon ca ruq ba euh, yal na ko suñ borom yokk ay xéewal fa mu nekk te itam yokk barke njabootam moom itam am njàngaleem a ngi noonu mbokk yi nga xam ne buñ ci delloo li ci nekk ci xikma euh, kenn du xam nan la toll ndax boo ko settantalee baat bu mu wax rek mu doy sëkk aw waxtaan xool nga fi mu daaneele nga xamante ne day fàttali nit boppam nit ki itam di fàttalikuwaat boromam te mooy euh, ma dem te ñëw. maanaam jékki-jékki rek ne bërët gi nga naan bërët yow fi mu nekk nii daal di waaj dem julli ji nee na ñokket gi nga naan ñokket ak ne eh gars yi xaaral ma dem bërëb sàngam te ñëw waaxu dem te ñëw nee na dajee yi dajee ba loolu am doomu aadama bi xamut loolu nan la toll maanaam bala koo xam dëgg-dëgg mu ñàkk ko fi mu nekk am liberté sax du xam liberté prime ak ni mu neexee waaye ki ñàkk liberté tey jii maanaam caabi féete ko ginnaaw wala ñu pine ko dij ko ci barab wala ki tawat tëdd ci lalu hôpital nga xam ne tey bu bëggoon a yóotu ab kaas mënta tàllal loxoom jëlal boppam verre bi dañ ko koy jottali bu bëggoon a wogganti yéreem mm, allahu akbar muuru muur ab tànkam mënatu ko dañ ko koy muural e, bu boobaa nag kooku mooy xam doole ji daje doole ji daje li suñ borom mobiliser nit ki ci kattan ak force ba tax bi mu bëggee def dara ne bëreet def ko ci saa si kooku mooy xam njariñ loolu loolu lañu góor gi di di junj noonu te itam muy lu ama am solo moom itam fàtte maam seex jamono mënatulaa fàtte àdduna mënatulaa fàtte yow xajoo ci ab tariixa waaye diine ji yëpp diine ji yëpp ak réew mi nga doon dunde da nga cee doon model doon koo xamante ne doomu daara la ndax doomi Seex Sidi Aboubacar si la di sëtu Seex Sidi Aji Malick waaye ba ñuy jàng mbindum càmmooñ ba jàngi ko ba ñëw dafa participer ci société bi loo xamante ne nii mën naa taxaw ca ña ñuy wone foofa exposé ko fa mu nekk fa royukaay ñi ñu wone fii itam ci nit ñi génne ci daara ji itam mu doon ci royukaay nga xam ne booy xool ñaari seex yi muy Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum mi ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma loolu euh, bind la bind la ci mboolem koo xamante ne donga nga bu nekk ci daara ji moo tax jotaay bi ñun donga ñi ko moom benn modèle la ñu nii boo xam ne bu ñu yéemoo ci wax ji ba noppi nag mu yeewaat ñu nag ci ñuy war di xalaat suñ borom dafa wax ak ñi nga xam ne dañoo am xel bëgg bëgg ñuy jëfandikoo suñu xel bëgg bëgg ñuy jëfandikoo suñu xel euh, moo tax mu ne qul innama aizukum bi waaxida loolu yonent saa sallam wax an taqumu lillahi masna wa furaada lam ca teg mooy su summa tatafakkaru ngeen daal di xalaat tàmbalee lëf tàmbalee réfléchir loolu daal di ñu yóbbu ca kanam mu nekk lu am solo bu ma noppee ci Serigne Cheikh noppi ci alaaji Ibrahima Sakho ki may daaneelee te déglu ko tey jii mu nekkaat keneen ku ñu fàttalikuwaat ak dundam Serigne Sam lay doon Serigne Sambay mu baax ma dëkkoon ca Louga moom itam di boroom xam-xam nekk nitu yàlla teg ci waaye nekk yarkat nga xam ne ñi jàngee ci ay kasetam ba seeni jikko defaru kenn mënta lim ñooñu nu ñu toll ñi baaxee ci ay waxtaanam ba tegu ci aw yoon kenn mënta lim ñooñu nu ñu toll moom la ñuy déglu ci jeexitalu jotaay bi insha allahu taala kon ni ñu def mooy daal di daw dem jëli ki nga xam ne mooy Serigne Sàmbay mu baax ma daal di koy wétlikoo ci jotaay bi incha allah ci suñ spécial xamtu bi nga xam ne ay fàttaliku lay doon ci mag ñu baax ñooñu ñu dem Louga te ñëw mbokk yi. bu bu ne ko woon sa ndey sa baay sa doom sa soxna sa xarit ak adduna bépp ñu dugal leen ci mbugal gi te yow nga mucc mu ne waaw waaw yàkkamti ko lool te du ko gëmee sax bu keroogee bis bu nekk jaam bu nekk da nga am loola doy sëkk wa kullun zahilun dalilun jaziun xaadiun mazurun waajimun wa amaamahu alxusamaa wal mawaasin ku nekk borom xaq yi wër le ñu teg balance yi teg siraat boo xam ne bi béréb bi nga xam ne ci la ñuy bu ñu xabee siraat gar ci ko ci jigéenu ma diggante siraat ak fi jaam ñi toll lëndëm goo xam ne soo ko lambee daj ko lëndëm gu ñul ko bu keroogee ngëm ak jëf rek mooy doon leeru nit bi nga xam ne mooy leeral kanamam bu keroogee way weddi yàlla yi nga xam ne ñu ñuy wax libre penseur mooy ñi nga xam ne amuñu be gëmuñu benn diine ak déiste yi nga xam ne yàlla rek lañ gëm waaye gëmuñu benn yonent bu keroogee dañu al unuq bi ñuy wax lu mel ne baatu gëléem boo xam ne day génn ca safara ñëw di leen cof ni ganaar gi di fe sof cofe pepp mi di wan di gëqi safara naafiq yi ak jullit ñi rekk des jullit ñi gëm ñi yàlla ak naafiq yi nga xam ne dañuy jullee ko woor te gëmuñu dara ñooy des bu keroogee lëndëm googu bu taxawee seen leer bi nga xam ne mooy leeru ngëm yi sax ci xol yi naafiq ñoom seenu leer day dal di fay ba moom la alquran di wax yaqul munafiqun lilladina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran fadriba baynahum bisurin lahu babun batinuhu fi rahmati wa zahiruhu min qibalihi al-azab yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walakinakum fatantum anfusakum wa tarbastum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta ja'a amrullahi wa gharrakum billahi al-gharur falyawma la yukhaffafu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'wakum an-nar hiya mawlakum bisal masir bu karoogee ba lëndëm googu suñu borom tëral ko ci kanamu jaam ñi ñu war ko jaar war ci jaar te kenn ku nekk sa leeru ngëm ak sa leeru jëf rek nga ci war a jaare naafiq yooyu nga xam dañ daan julee ko woor te gëmuñu dara seenu leer fay xëy ñu dal seen mbokk yi nga xam ne boroomi leer la ñu naan leen ay yéen xool leen seen xar ndax seen leeri xar kanam yi leeralal nu fi ñuy jaar naq tamit mu ñu ne leen dellu leen adduna ngeen sàkk fa leer fan ko si doon sàkk wa xam ngeen ne ko de mooy ñaawal nit ndax nit ki dana feebar ba yëkkati loxoom sax du ko man pour dellu ci adduna moom du xalaat waxuma laa ci dee bañ suul ko ba mu dekki ba taxaw ci pëng ba nga naan ko dellul adduna di sàkku ji ak leer xam ngeen ne ñaawal nit foofu la mën a yem qiila irji'u waraakum faltamisu nuuran alquran ko wax de dellu leen seen gannaaw ngeen sàkku noor ba mu ko defee fadriba baynahum bi suurin suñu borom daal di doxalee miir bu tal seen diggante ñoom naafeq yi ñu ne ci biir lëndëm gu targa ñu ci def nekk ci leer bi baabul baatinuhu fii rahmatu miir boobu dana am bunt boo xam ne wet gi féeteeg way gëm ñooñu yéemande yàlla rek a fi nekk wa zaahiruuna min qibalihi al azaabu la féeteeg gaañu ca lëndëm ga te mooy naaq feq ya mbugal la ñu jàkkaar lool yunaaduunahum alam nakun maakum bu boobaa ñu di leen woo diw xanaa bokkuñu woon dëkk ci àdduna ay ngir yàlla dimbali ma xool ma alam nakun maakum yunaaduunahum alam nakun maakum hakay qaalu bala hakay walakinakum fatantum anfusakum yéen a fitnaa yéen seen bopp war tabtum ngeen sikki sàkka waxaratkum lamaani yu mébét yu guddi yi war leen xataa jaa amrullah ba mbirum yàlla ñëw waxarakum billahi xaruur warkat bi nga xam ne mooy seytaane war na leen fal yow ma laa yoxus minkum fidyatun tey daal du rançon du du du dara loo xam ne lii ñu ko jël ci yéen nangu ko ci yéen ngir ngeen di ko jotoo laa yoxus minkum fidyatun wala min alladina kafaru ma'waakumu naaru ah, safara rek hiya mawlaakum bi'sal masiiru bu keroogee loolu mooy xew bu keroogee loolu la dana xew gaa nga xam ne nag suñu borom wërsëg na leen leer yooyu ni ñu rawantee ci leer yi la ñuy jéggee siraat noonu la ñuy rawantee siraat bu keroogee boo xamee ne nit ñaa ngi sóobu sallallahu taala wa sallam mu ngi taxaw ci wetu ndeyjoor gi rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim suñu borom musalal sa jaam yi suñu borom musalal sa jaam yi malaayika yaa nga taxaw seeg beneen boor ba allahumma sallim allahumma sallim allahumma sallim suñu borom musalal jaam yi suñu borom musalal jaam yi suñu borom musalal jaam yi bu keroogee siraat nga xam ne doolinka yi lonk yi nga xam ne yu ñaw yi mu ngi génne ci biir safara di di fëkk jaam yi di leen lonk di yóbbu ay mbooloo ku nekk yaa ngi jàll siraat dafa am ay pom maanaam pom bi mu doon dafa am ay diggante yoo xam ne bu ci nekk da fa taxaw benn diggante bi nga xam ne kóolute daañu dafay laaj na nga sàmme sa cër yi téele fa lu yàgg na nga sàmme sa cër yi beneen bi na nga toppatoo mbokk gi beneen bi ci def suñu borom yi mu la digaloon ak yi la tere woon na nga ca def moom lañ lay fay téye bu yàgg da jaam boo xam ne daañu ko téye fukki junni at mu naan suñu borom yàggaay bi ana lu tax lu ko waral lu ma jëf mu ne ko yàggaluma la sa sa jëfale yàggal mucc kon mu ngi bokk ci li gën a jafe li tax mu jafe sang bi nee na rubba xabrin yu zaar wa saahibuhu fi naar bari na bàmmeel bu ñuy nii siyaare ji te borom a nga ca safara koo xam ne nit dañ koo xamoon ci jub ak maandu ko dénk ko seen dee ñuy ji bàmmeelam te ma nga ca ko seet da nga ragal suñu borom boo seetee mbirum bala an ibnu baura wala nga seet mbirum bir danga da ragal yàlla te xam ne jaam amul garanti balaa am ibnu baawar moom bokk na si ñi àndoon ak yonent yàlla suleymaan bokk na si ñi ko gënoon a jege nit ñi wóolu woon nañ ko ba nga xam ne waxtu wu toogee di waare lu mat fukki junni nit a koy wër ñi koy déglu si buñ wañee daa yi ñu amee xalima yi pour di bind li muy wax dana mat juróomi junni ñoo xam ne ñii ñëpp dañuy dig li muy wax rek di ko bind nga xam ne bu téenee asamaan day jàlloog aras ak kursi yu ay àjjana ak safara dem na ba dellu gannaaw ba wedd yàlla ba bokk ci concours boo xam ne pour wane ne yàlla amul mu jël première moom balaa mu baa ora Birsiis dafa bàyyi woon doom aadama yi ngir ragal yàlla dëkk ca àll ba ngir bañ a mooy bañ a sàggan bañ a gis lu mu bëgg liggéeyul lu dul jaamu yàlla la mu mujjee seytaanee ko fexeel seytaane pexem feeg nit ki noom gaa ngi dem ak a dikk muccagu ci laa taamanu makaayida cheytaani qabla firaaqi ruuxi li labdaani li annahu waxtal mamaatiyaat yi doomu aadama dana nekk ci yoonu jub ba toll ci sukaraat cheytaani ñëw yàqal ko laa qadar laahu wala sama wala iyaadu billahi bir siis moom cheytaan ni mu ko fexeele dafa demoon fekk benn jànq bu rafet rafet ba doy waar mu daal di koy sadd muy daanu ay rab fu ñu dem rek duñ ko mën a faj ñu ne ah am na benn jaamukatu yàlla bu nekk fële de nañ dem seet ko ba xam bi ñu dikkee ne ko kii ñaanal ko mu ñaanal ko iblis daal dindi feebar ba mu wér ñu ne ah, kii de moom moo ko faj bu ñu delloo toujours ñu jekk ba mu affaire bi dalati ko ñu indi ko ba mu yàgg nga xam ne daf koy li mu koy dal day jege yoo jege ñu ne nañ ko bàyyi foofu dégg nga foofu pour daal mu di ko ñaanal ba mu wér ñu ci des yëpp mënu ma leen ko nettali xam ngeen ko ba mu ko ëmbalee seytaane ñoom wax nit ñu ne leen kii ngeen di wax de nangam mu nangam ñu dem di ko seet fekk rey na ko ba suul ko seytaane wan leen bàmmeel ba ñu sulli ko gis yooyu yëpp mu doxe ci nag dal di gedd diina ji li naan sàngara di def lu gën a bon ba mujj ci safara nga xam ne ko mbirum bala am ak mbirum birsis yooyu yëpp nag waxtu yi du laaj nga détaillé ko ak na mu demee dëgg-dëgg. jaajëfalaat leen bu baax a baax a baax mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak ñun ci jotaay bi waaye jaajëfal bu baax a baax sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si almaktuum alxaaji Ibrahima Sakho mu baax mi noonu la ñuy jaajëfalee sëriñ Sambay mu baax mi rahmatullahi alayhim wa radiyanhum yal na ko suñ borom defal leen ko te defal ñu ko mbokk yi ñu doon topp kon foofu la ñuy yëkkatee jotaay bi jaajëfalaat leen bu baax a baax ndokkeel leen siyaar leen te leen nes tuuti kon ñu bàyyi leen ak waa rédaction bi ñu ànd ak yéen ci xibaar yi ànd ak yéen ci wax sa xalaat ak yi nga xam ne moo ci aju buñ dogee ba noppi da ngeen ànd ak Oustaz Alioune Sall ci jotaay boobu nga xam ne mooy Riyadou Salihine ñu ànd ak moom ci nidaatu rahman li ahlil iman bu guddee Oustaz Alioune Mbaye ak Imam Momar Seck ñoo fiy dellu si ci guddi gi ñun bu fajaree la ñuy dellu si waat ak yéen ci seen jotaay boobu di Al Misbah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.